di rafetloon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës Khalifa Sall jàkkaarlooti kon ak waa division euh, des investigations criminelles diirub juróom-ñaari waxtu moom maire ko Ndakaaru euh, ni ma ngay xaar yeneen i procédure waaye jàpp na ni kenn mënu koo xoqatal la caisse d'avance ba na mu ko yoree amul dara loo xamante ni lënt na ca wala lu ñu ca mën a euh, laam-laamee yelleefu nit ñi ci àdduna bi Amnesty International daal dinay siiwal ab rapport am jàpp 2017 la mu ca gis nag nee na kenn mënu ko nangu muy naqarlu yenn jëf yi bunduxatal liberté d'expression bi ñuy tere ñenn ñi ak yeneen lu toll ci téeméer ak juróom fukk juróom-ñeenti réew moom la boobee rapport euh, soxal ci janoor waaye taskatu xibaar yi la ñu xamle listu représentant yu réewum Sénégal ci FESPACO 2017 ka def lu ni mel directeur cinématographie ni nag ñooñee ñu tànn ñu fas yéene fa taxawal réew mi ñu leen gunge waaye it ma ngay xamle ni ngir daal wàllug cinéma gën a taxaw faaw formation bi ñu xoolaat ko ci suñum réew ba gën a mën a taxaw taxawaay bi war ci yenn jongante yi tàggat yaram comité national provisoire billard ni ma nga jëm ci fédération nationale loole nag nee dina leen may ci déndub Afrique compétition yi ñuy def wala sax euh, ca yeneen i continent ñu mën caa bokk euh, am na nag ngir jëm ci lu ni mel yoo xamante ni ña nga koy wàcc des na ci dikk ca kanam tuuti ponk yaa nga kon ni ñu yaatal ko londi bi ak télévision Futur euh, Média tombale ko kon ak lu jëm euh, ci euh, dégluk Khalifa Sall meeru Ndakaaru gannaaw démb ca division des investigations criminelles te it delluwaat na fa diirub juróom-ñaari waxtu kon ci la jàkkaarloo kon ak enquêteurs yi nee na sax ma ngay xaar yeneen i procédure waaye nee na daal kenn mënu ko bundu xataal wala sax di ko tiital ndax amul dara lu dalutum xelam ndax na mu yore yëf yi kenn na lu wax ci lam-laamee Adiya Talla Modou bi mu génnee audition bi gën a takku la fësal di xamal ni rek xoxotal ak fu mu munte jóge daanaka mënul tax rek ba mu dellu ginnaaw. li ñu gëm mooy li ñu xam mooy li ñu def te li ñu def amul ci dara lu lëndëm. ah enquête bi jeexagul parce que day soog a door puisque day soog a door nag ñun pare nañu mais li nga xam ni daal moo mënul nekk. bëgg a teg tuuma ci nit ñi bëgg yàq der ngir des raisons politiques loolu moo rafetul jekkul ko ma jotu tontu kenn li may def man dama koy def rek mu yokk ci dine ñi bëgg mu fësal ñi nga xamante ne jàpp na leen ci kees d'avance yi ñooñu nañu noppalu ji te xam ni du ko mës a def. xaalis bi kenn lekk ko xaalis bi kenn foyewu ko xaalis bi kenn sànniwu ko. kon waaw ma wax ni du ma wax kan lañ ko jox parce que kenn du xawi sutura mais dama wax ni. Blaise Diagne ba léegi amul benn meeru Dakar bu wax fan la dugal fonds yi kenn. kenn mënul fexe ba ma wax. ci mbirum lu mu téye koppar caisse d'avance yi amul lenn loo xamante ni jaarale ko yoon ci kàddu am. lii du dara lu dul jéem a yàq der parce que xam nañ ne 2009 ba léegi ni ñuy liggéeyee ci mairie bi liggéey bu leer la te caisse d'avance bi ma wax sénégalais yi ni depuis mi ngi fi dëpp Blaise depuis 1996 ni muy doxe nii noonu lay doxe changé wu ci du man maa ko créé sosuma ko sooke ko kees bii askan wi lay jëriñ pour liggéey pour dimbali pour jàppale pour mottali ay nit ay organisme yoo xam ni dañu soxla mairie bi bi audition bi jeexee xalifa Sall ak ñooñam bëggoon amal benn doxantu ba mairie Dakar takk der yi daal di leen ci tere daal di tas mbooloo mi ak ay grenade lacrymogène Nadia Talla gannaaw kaddu yi Amadou Diarra bokk ci parti démocratique sénégalais suivre ngeen ko fii kon ci suñuy antenne euh, joxoñ baaraam euh, nguuru président Macky Sall ak yenn doxalin yi président mouvement de Zem kon daan na koy euh, tontu la mu jàpp nag moo di bu position bi xamul naka la war a taxawee ci législative yi la leen naqari nañu ko saafara ci seen biir waaye bu ñu ca tuumal kon nguur gi te sax nee kii di Amadou Diarra nag dafa jéggi loo xamante ni. gi euh, dafa àgg foo xamante ni du wàllam buy demee di sàkku ci askan wi euh, ñu résister loolee kon du cëram Malick Cissé moo ko xamal euh, lu ni mel ma nga bokk ca APR waxee ci micro Salif Sow bett nañu lool quand parce que conditions yi ñuy travailler nañ ci conditions yi baax lañ nekk di travailler sous la supervision du sous-préfet de Pikine daagu daan nit ki bu la bëggee tuumaal daf lay jiiñ loolu dañ koy teg ci wàllu politique wante yaakaar naa ne Sénégal fi mu toll politique politicienne mënatul nax kenn boo parewul da nga naan nit ñi parew ma nga xool nooy def wante opposition bi dama bëgg ñu xam ne élection dina am le 30 juillet donc élection yooyu ay carte moo koy vote te carte yooyu ay sénégalais ñoo koy inscrire te sénégalais yooyu ñoo ngi inscrire gisuñu étranger ci liste yi xam ne sénégalais yi ñoo ngi koy inscrire ba fii étranger yi yiy dund si ñun on les respecte parce que dëkk boo dem fekk fa étranger bu nekkee dafa tiit ci li mu gis ñu koy inscrire gisu ci boppam na jéem a dugg ci kër yi def ni ñuy def day seetaat boppam kàddu yi waxuma la ëpp na wante dafa jéggi dayoo parce que yaakaar nañ ne fi ñu toll ci Sénégal ak climat social ak apaisement bi fi nekk woote résistance day mel ni da nga bëgg jàmmaarloo ak ordre social bi fi nekk day mel ni da nga bëgg a créer désordre tey jii nii remettre en cause ministre de l'intérieur du problème remettre en cause euh, commission yi du problème ku jalgati defe naa loi nga amal affaire ñun de gëm nañ ne kii teewal parti démocratique sénégalais ka jiite ci assemblée nationale soxna Aïda Mbodj di présidente alliance nationale pour la démocratie moom ma nga woon euh, ca diwaanu Ndar foofee nag euh, da doon installé euh, ka ko fay toogal ka fay toogal mouvement ba coordonnateur régional ca profito wax ci diggante relation yu Sénégal ak Mauritanie yi daal ñoom ngir rek jagle situation bi ñu teelu ko ci micro seeni Diop. alliance bi euh, taxawaayam mu ngi ci biir parti démocratique sénégalais mouvement politique la mais dafay joxe beneen offre politique bu bees offre politique boo xam ne bokkul ak parti traditionnel yi parce que li ñu leen waxul léegi moo di ñun dañu non seulement offre bi dañu bëgg mu dimbale nit ñi. mais ñu yem rek ci tàcciloo nit ñi wala dugal leen ci oto rek yóbbu leen waaw loolu man dama bëggoon état bi taxaw ci bu baax parce que euh, bu ñu jël napp napp bi rek traité ko comme napp nañu seet napp bi ak diplomatie te état wu Sénégal tam dañu dafa am loo xam ne ñu ngi ñuy bëgg a yab te loolu teguñu ko fenn bu jotee bu boobaa opposition sax dootul am ñun ñëpp dañuy dajaloo pour mën a taxawal nag réew bi taxawal réew mi moo di dëgëral sax nguur gi fi nekk pour que mu dem jàkkaarloog nawleem yi pour wax leen li mën a nekk li mën nekk mooy nit ñi dañu tàyyi ci bu ñu demee ñu di leen jàpp ak di leen toroxal ak di def naka sudul noonu loolu kenn du ko nangu donc il faut nguur gi taxaw te loolu la ñuy xaar ci moom wax nañ ko assemblée dañ koy wax fu nekk nañu leeral diggante bi bu ñu leeralee diggante bi ba pare door teg nag napp gi parce que xam nañ ni ñuy nappe tradition la cosaan la xam nañ ni ñu koy defee mais li ci des rek mooy nañu wax ak suñuy nawle Aïda Mbodj ca Ndar euh, njiital PSD jant bi ca Diourbel foofee nag euh, nee na dafa am naqar ndax la mu fekk askan wa di ko dund ñàkkum xëy ndóol euh, ñàkkuk karange ak yeneen i jafe-jafe ba tax Mamour Cissé di sàkku nag ci nguur gi ñu gestu Diourbel te lii di kon vallée fossile yi ñu fexe ba dundalaat ko ñu daal di kon dégluy kàddoom seetaan ko ci micro Mohamed Jo Diop caméra dama ne Diourbel ku fi ñëw tey euh, gis euh, naxar bi fi nekk premier au premier chef mooy amul liggéey xale yi liggéeyuñu jigéen yi liggéeyuñu mag yi liggéeyuñu góor yi liggéeyuñu benn industrie fi nekkoon bu doon euh, employé au moins cinq cent personnes tey c'est à su dee mën na jël cinquante statistiques récentes yi ñu yore les gens estiment la pauvreté à Diourbel entre quarante huit virgule cinq pour cent à soixante deux pour cent man dama ne su dee quarante huit virgule cinq pour cent la. berte na ma parce que je m'attendais à piir mais lii yëpp aussi ñu sante ko euh, Touba ak sëñ Touba parce que heureusement que Diourbel euh, jiitu Touba parce que su jiituwul woon nekkoon tey Thiès ak yooyu musiba naaru laay dina ko dal mais li ko may chance mooy tey ni mu rëkk tey ci ci ci ci ci Touba. alors euh, ñun am nañu tey ay proposition yoo xam ne ne suñ ci tënkoo mun nañu dekkalaat Diourbel na mu mel noonu démb teg ko ci ñaari ponk. mooy vallée fossile dafa am fii daf ko traversé euh, euh, Diourbel may ñaan autorité yi nañu ko dekkalaat pour permettre tey Diourbel mën a doon tey le grenier de Touba parce que Touba mooy la deuxième ville. ak ak yelleefu doomu aadama fan la toll ci àdduna bi Amnesty International publié na rapport am 2016 2017 bi la mu ca jàpp dalul xel situation inadmissible euh, la ñu wax yenn jëf yoo xamante ni waroon nañu ko dépassé jamono jiit ba tey ñu koy euh, dundu téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeenti réew euh, bi rapport tënk na leen Sénégal ma nga ca Gambie ma nga ca Aïssatou Pay ci nettali gi Amnesty International joxoñ baraamu tuuma lu toll ci 159 dëkk ak ay territoire lii kuréel gi di ñawlu ci rapport annuel lu 2016 2017 bi mooy ñaawteef ak violation yu doy waar yu ñuy violé ak ak yelleefu doomu aadama ak ay souffrance humaine yoo xamante ne ay état ak ay groupe armé ñoo ko jot a def Euh, il est important de rappeler aux différents gouvernements que. gouvernement yi dañu war di fàttaliku ne sañ-sañu wax sa xalaat ak booloo dafa am solo te dafa am njëriñ ci démocratie li ñu nemmeeku nag ci Afrique sowu-jant ak Afrique centrale euh, ci dëkk yu mel ni Cameroun Gabon wala sax Tchad moo ni dañoo sonal askan wi loolu te loolu nag dafa warul benn yoon. particulièrement tendu ce n'est pas une excuse. Sénégal ak Gambie de suñu ginnaaw. ay poñ yu am solo nag ñu soulever ko lu ci mel ne liberté d'expression ak d'opinion ak façon bi nga xamante ne la ñu téye prisonniers yi ci kaso yi ak yeneen i ñaawteef situation boo xamante ne Amnesty Sénégal moom daf koy ñawlu ba fu mu toll nii. képp koo xam yaa ngi biir administration su fa gisee lu doxul nga siiwal ko dañ lay daal di teg persécution loolu gis nañu ko fii. Euh, ak euh, colonel Ndaw gis nañu ko fi ak Ousmane Sonko et ñu koy en tout cas préparé contre benn juge boo xam ne fan yi rek dafa bindoon benn bataaxal wax ci loo xam ne euh, mooy ay gis-gisam ci doxalinu conseil supérieur de la magistrature loolu dafa baaxul waaw kaso yi nekk ci biir Sénégal am na benn boo xam ne nekk na ci norme yi nga xam ne moom la Nations Unies santaane ñu bëri ci biir kaso yi dañoo fees ba ëpp ñaawteef yi nga xam ne moom lay régime Yaya Jammeh def ci ñaar fukk ak ñaar yi te ñëpp daan ko ñaawlu ñaar fukk ak ñaar yi li ñu xalaat mooy justice dafa war a am. ginnaaw loolu yëpp nag Amnesty International taxawal ay recommandation yu am solo muy woo nguur yi ngir ñu gën a taxaw te respecté ak ak fu doomu aadama. élection yi ñuy nattee syndicat yi fédération générale bi ëmb liggéeykati Sénégal FGTS ñoom nag ñu ngi koy wàcc ca waaj googee la ñu doxantu démb ba fële euh, ca euh, Tëngéej ñu ni nag ñoom noppi nañu euh, te ànd nañu daal ak lu jëm kon ci yooyee yeesal waaye am na loo xamante ni ñoom duñu ko mën a dékku daal xalaatuñu ko nangu mu di mbiri patente yi ak ni ko nguur gi bëgg a doxalee Ousseynou Thiam Mbira Diagne ñu ñuy nettali nañu àggee ca Tëngéej ak lañ fa wax ci tëngeej lii di fédération générale des travailleurs du Sénégal di FGTS profitoo nag ci taxawlub lii di comité électoral am nag àddu ci lii di réforme convention collective nationale bi nga xam ne nii daanaka taxawal nañ réforme bi kii di Sidya Ndiaye ak ñooñam nag jàpp ne réforme boobu nag dana jël bu baax en compte lii di jafe-jafe liggéeykat bi jot ñëw na nag ci lii di wax toom lu ñu jaaxal mooy liggéeykat yi naka la ñuy fexe ba ci période bi nga xamante ne moom la ñu gën a soxla syndicat ñu taxaw tem xeex pour que convention bi aboutir en tout loolu mooy suñu tànk FGTS mu ngi kii woo ñëpp ku ñëw jàppale ñu ñu ànd ak yow waaye ku ñëw pour simplement diverti nit ñi ñun du ñu ànd ak yow parce que ñun dañu yaakaar ne syndicat yi dañoo commencé poser problème ci réew mi. naka la ñuy nangu ay textes époque coloniale di ñuy régir léegi xanaa du ñu indépendant et je crois que ensemble ñun ak direction ak waa Rufisque ak au plan national fu ñu jëm dinañu siiwal réforme na mu ngi ci taalu danañ def ay manifestation pour que liggéey bi nga xamante ne au conseil def na ko ba pare ah ñu koy rafetlu ñëpp jàpp ci pour que ñuy soppi li nga xam ne mooy convention collective nationale internationale. lu jëm ci wàllu patente yi nga xam ne ni dañ ko nar dajale séddale ko yenn ci gox ko xaan te bi sax daanaka door nañ ko lii di FGTS nag jàpp ne narul rek lu dul ndóolal yenn collectivité locale yi lu ci mel ni diwaanu Tëngéej. Ah, li nga xam ne suuf si mu ngay joxe dañu ko joxaat ville Rufisque kese. li wal daal di joxe du ko joxe virus ki kese dañuy boole lépp dajal ko ba mu mat ñoo nañ ko séddale commune Sénégal yëpp mais li ñu am ñu déjà ñu bëgg a jël di ko séddale mooy li ñuy wax rek déshabiller Jean pour habiller Paul suul bukki sulu bukki loolu nag du ñu ko nangu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg affaire bi du ay rumeur du ay dégg naa lu am la ca geneen wàll lii di FGTS mi njort ne yenn syndicat yu mag yi lii di état bi dafa leen taxawu jëm ci wàllu élection yi nag ñoom jàpp nañu ne élection yooyu nag narta rek jaar ci yoon secrétaire général CNTSFC moom ma nga woon ca euh, Xaraxena euh, foofe it euh, daan nay doxantu seet ña nga xamante ni ñoom la liggéey ci wàllu or bi ak yu ni mel Cheikh Diop daal di profito sàkku nag ñu réorganiser secteur bi mu naqarlu la nga xamante ni it moo xew ba kii di Yamadou Sagna faatu ca moom la kon doñe boobe doroon bal Cheikh Diop dañ ko waxee ma nga woon kon ca bët sàll mu réew ma ñu fekk jëfa Moussa Oumar Gueye Yamadou Diadio ci ginnaaw yëngu-yëngu jamono bu tar bi amoon ci ay bés bi ñu génn ci Bokodi Xosanto nekk ci Saraya ci diwaanu Kédougou kii di secrétaire général bu CNTS FC Cheikh Diop daal di amal tukkim nemmeeku dem ca Juróoya bërëb yi nga xam ne dañ fay jeex wóos Cheikh Diop ni dafa dikk ngir indi xibaar jàmm waaye itim ba tey gën a ñaax nguur gi nañu xool yan pexe lañu war a def nu mu gënee jàmp ngir nag daal di sellalaat lu jëm ci wàllu jeexinu wurus ci Kédougou ci bailleur la ñu bokk ci CNTS force du changement kon bu leen gis boobu dalee dinañ fa dem masawu leen mais aussi jàlle leen waaye it dem fa pour situation bi dal parce que ak jàmm ci la lépp xaj ñoom jox nañu seen i tawat nangul nañ ñu jàmm ji ñuy dox jox nañ ñu aussi seen i tawat. dawat yooyu nag am naa yaakaar ne lu war a mën a sotti la couloir orpaillage yi nga xam ne dañ leen ko war a jagleel sécuriser leen aussi ñu jagleel leen ko mais également gis nañu ne liggéey bi metti na te it nekkuñu en sécurité xale yi sax dañuy liggéey te xale liggéey du du cërëm cërëm mooy dem jàng diggante service d'ordre yi aussi ak population yi amoon na tuuti réeróo ñu bëgg nag service d'ordre yi def seen liggéey ni mu waree mais aussi ñu jox cër ak respect population yi ba lu mel nii di responsable bu CNTS FC ci tukkib nemmeeku bi nga xam ne mi ngi koy amal ci diiwaan yi nga xam ne ñoo fare bët penk ak bët saalum fii ci Sénégal muy Ziguinchor Sédhiou Kolda Tambacounda Kédougou daal dina waxtaan ak militant yi ñeel nag jongante yi nga xam ne war nañ ci dëgmal ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu liggéeykat yi loolu war am ci Sénégal wërngal këpp fii la jëmmi jamono askan wi si ñaanee na dañu sonn kon ci jël seen i malade di ko rawale bori frontière Gambie ndax tolof tolof euh, kese la loola tax nag ñu bëgg poste de santé ba fa nekk ñu daal di koy defaraat ba mu nekk hôpital de niveau un ña nga xamante ni ñoom ñooy sàkku lu ni mel moo di euh, conseillers municipaux yi ak kilifa ya nekk foofu ñoo taxaw ni nguur gi na leen wuyu ci boobee bëgg-bëgg Boubacar Dias yi à partir de commune bi chef lieu bi ba si yeneen dëkk yi nekk ci biir am na yoo xam ne ñu ngi nekk si vingt kilomètres ci biir ay yoon la ñu am euh, yoon yoo xam ne oto mënu ko mënu fa jaar conseil yi daal di ne maire pour mu continuer plaidoyer bu mu nekk di def pour que poste de santé bu Sindian ñu def ko hôpital de niveau un il faudrait que arrondissement yi nekk ci biir muy arrondissement de Sindian mu am hôpital de niveau un loolu su amee Sindian nekk arrondissement donc ci biir commune bi ak ci biir yeneen communes yi yi nga xam ne yooyu la arrondissement bi polarisé mu am ay poste de santé parce que gis nañu jigéen bu bëgg a wasin tey nekk ci biir booru frontière ba booy ñëw si ay moto Jakarta ngay yéeg pour nga ñëw Jakarta am na foo xam ne sax bu ñu fa eggee foog ñu taxaw ki ñuy yëpp mu wàcc ñoom ñu mun a dox ba génn si kamb yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si yoon bi parce que yoon bi dafa bëri ay kamb di ñaan. pour ñu jàppale ñu pour que ñu mun a am yeneen poste de santé ci biir mais aussi que arrondissement bi poste de santé bi fi nekk mu nekk hôpital de niveau un pour dimbale jigéen ñi pour jàppale leen surtout koo xam ne da nga feebar guddi gi ñu war la évacuer indi la ba Sindian muy kon maire Signa moom ngeen gis euh, noonu Yankoba Sagna la wiyoo doon ci micro Boubacar Dias yi jigéen ñi yëngu ci daal euh, yenn céréales yi ñu koy transformé ak defar ñoo bëgg seen secteur boobee it ñu gën koo jékki-jékkal euh, gën koo professionnaliser ca Thiès nag la ñu amalee kon am ndaje taxawal fa benn fédération di xaar ci nguur gi mu taxawu leen ndax seen i jafe-jafe bari na Thiès Cheikh daanaka ay junni jigéen ñoo dikkoon fii ci place de France ci Thiès jóge woon ci ñetti département muy Thiès Mbour ak Tivaouane ñii de dañuy yëngu lu jëm nag ci wàllu meññeef bi ñuy coppar ñi di ci def ay jus ay yeneen xeetu ñam daje woon fii doon càmbar seen mbir tabb ab fédération boo xam ne dafay lëkkale jigéen ñi nekk ci ñetti département yépp ñoom sax nee nañ dañoo bëgg woon ginnaaw liggéey bi nga xamante ne dañ ko daan liggéey loo xamante ne xañ na teguwul woon bu baax ci yoon lépp luy agroalimentaire ci région yëngatu bëgg nañ koo identifier ñu fexe di bay production qualité bu ñu paree ñu transformer ko muy transformation qualité bu ñu paree ñu mën koo jaay ca tey fi ñu toll li ñuy produire ñu ngi ciy dund waaye nag bari na luy def liy def noonu nag ñu war koo jaay nañ ñu jàppale ñu am emballage yu baax mën a génne njaay mi. ñoom sax nee nañ li ñuy métti lu moom mooy financement yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg daanaka joxuñu ko ñi ñu ko war a teg seen loxo mooy jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu bu baax lu jëm ci wàllu koom te ñu xam leen. ñun ñiy def développement nañ ñu jàppale ci programme yi nga xam ni teg nañ ko ak plan yi nga xam ne teg nañ ko rawatina ci wàllu financement dañ cee wax ba bëggatuñ cee wax chaque jour ñu ngi laaj financement mais chaque jour tamit ñu ngi teg ay actes yu jaar yoon xañ na dimbali ñu waaye nag ñu ngi dimbali suñu bopp kon suñu dimbalee dinañ gën a mën a egg fa ñu war a egg formation tamit bëgg nañoo yokk bu baax xam-xam ak xawaayu jigéen ñi. xamal leen ba kenn ku ci nekk place ba nga féete nga mën koo fees dell lu jëm ci éducation financière tamit ñu jàngal leen ko ba financement bu ñu jot xam nañu koy saytoo. booloo moom mooy doole soxna yi nee nañ am nañu ay kuréel yu leen jàppale dinañ amal ay centrale d'achat yoo xamante ne daañu ko def ci ñetti département yi nekk ci région Thiès yëpp ngir produit yi ñuy defar ñu mën ko di ko jaay ba di ko yóbbu bitim réew. FESPACO 2017 ña cay euh, teewal Sénégal euh, daan nañu koy siiwal directeur cinématographie moom moo ko lee jàpp nag ni nguur gi dana leen euh, gunge waaye ngir xëy na yokk seeni chance rawatina cinéma fi mu toll foog formation bi it ñu gën ko fi xoolaat reportage Aïssatou Paye Younous Diatta juróom benn film nag nar a compétir fay ca FESPACO 2017 bi production yi bëri loolu mu mel na yàkkaar mën na am waaye objectifu directeur cinématographie bi nag mooy gunge compétiteurs yi ci anam yu mu gën a rafetee. Le premier objectif c'est de bien accompagner les cinéastes suñu bëgg-bëgg bu njëkk mooy gën jàppale ñu yëngatu ci wàllu cinéma jàppale boobu nag ci fànn yu bëri lay doon bi ci njëkk mooy ñu gën fësal réalisation yi ñuy def jaarale ko ci ay projection ci weneen fànn bi tamit ñu jël matuwaay ak ngëneel yi yëpp def ko ci suñu côté looleen nag ñu jaarale ko ci technique waaye tamit ci wàllu communication sur les plans techniques mais sur le plan de la communication. ren nag ñu jël thème bu am solo muy wàllum tàggat. pour la formation ça nous le reconnaissons nous avons des faiblesses nous avons tenté. ci wàllu tàggat bi xam nañ ne te nangu nañ ne am nañ ci ay jafe-jafe waaye du ñàkk ne bu ñu génnee ci FESPACO bi ñu jëm daañu gën a wéyal tamit dëgëral euh, formation bi loole nag dañ ko jaarale ci ay colloque ak ay waxtaan ci wàllu woowee mu jëm ci wàllu audiovisuel ak multimédia dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel pourquoi pas et du multimédia. ñu nax si nax sargal ay pionniers yoo xamante ne def nañu lu am solo ci cinéma sénégalais. dans les sélections hommages. alors Sénégal va s'illustrer encore avec. Euh, ci pàcc bu ñu duppee la sélection hommage Sénégal dina ci teew ak ñaari doomam yu ràññeeku lool ci wàllu cinéma ak tamit benn doomu africain bi ñuy woowee Pauline Soumanou Vieira am nañu tamit beneen hommage bu ñuy jagleel Ousmane Sembène euh, kii di Samba Gadiogo loole lépp nag ci hommage yi lay bokk. Samba Gadiogo va être euh, projeté et aussi avec des hommages. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février jëm ñeenti fan ci weeru mars nag mu mel ne nag réalisateur yeeg producteur yeeg ñëpp ca FESPACO la ñu nar a tase ñuy ñaan nag suñu représentant yi ak ñi nga xamante ne ñooy réalisateur yu ndaw yi nag am fandam ñu addu ci wàllu kon biyaar comité national bi fi nekk ni woon ni mu ngi jëm kon na ci fédération loolee nag la ñu bëgg fédération nationale de biyaar ngir compétition jongante yi am ci Afrique waaye it euh, ci yeneen continent yi ñu mën ci bokk euh, ci saison 2017 bi am na yeesal yu bari yu ñu ca tënk bokk na ci championnat boo xam ni euh, dana dem ci fukki fan ki ci indi ay leeral Mor Thiam moom ci boppam moom kon bokk ca comité national provisoire boobee euh, moo ci nday leeral gannaaw janoo bu ñu séq ak waaye taskatu xibaar yi ci micro Aminata Mbaye Sow mbir buy dox da ngay jéem xool ni muy doxee pour nga mën a ànd ak tamit sa jamono parce que tamit boo koy def yaa ngi koy def mais defin bi yëpp boo fekkee da ngaa am fenn foo yemale sa bopp tamit li nga li nga ciy sàkku tamit doo ko ci gaaw a am li ñu ci soxla mooy fédération bi mooy ni que dañoo am ay mbébét yoo xam ne dafa weesu li mooy li ñuy wax fii ñu nekk muy Sénégal bëgg nañu bu ñu jógee foofu jël euh, li ñuy wax euh, yaatal suñu bopp ba Afrique bu ñu weesoo ci Afrique bi nag doog a dem nag lépp lu jëm ci wàllum international bi mooy àdduna bi daal. coppite yi nag fu mu toll nii mooy daaw juróom-ñeenti bis nañu jëloon yoo xam ne chaque weer dañ ci jël benn bis boo xam ne pour ñu def ko ren tamit indi nañ ci benn coppite mooy ni ko dem nañu ba fukk ci biir fukkeel bi daaw benn yoon nañ ci génn Dakar. léegi nag ren dañoo am mébétu dina am ñaari bis yoo xam ne dinañ ko génn yooyu moom wóor nañu mais ñetteel bi ci loolu daal fu mu toll ni ñuy xoolaat mooy lu jëm wàllum ndar tam jéem fa dem tamit pour nit ñi tamit gën ko yaatal daal fi ñu ko dëkkal ñu ci bëri dañ ko dëkkaloon ci anamin boo xam ne ku ku yorul mooy li ñuy wax doo ko def waaye yaakaar naa ñu ci bëri ci ñun ñii ñu ci bëri nekkuñu ñoo xam ne dañoo juddu mooy li ñuy wax ci kër yoo xam ne li ñuy wax aisé mooy kër yoo xam ne ay borom bu barkee fa ne waaye teewul dañ ko def léegi yaatal ko ba nga xam ne ku ci nekk boo amee téeméer boo ñëwee di nga mën a jouer. nga ko wàllu biar ca lay wax ci kàddoom yooyu sax la ñuy euh, taxawandi ci xibaaru 19h30 20h allah rédaction bi dina dellu si ci kàllaama nasaraan bu boobaa ak Sara Cissé lay doon jërë ngeen jëf.